Euh, mu mel ni dañoo ànd ak sëñ Mudu Mbàkke si mu ñëwoon fekk si fii wala réem xaritam sëriñam a sëñ Amsa Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ci liggéey bu am solo bii ko magam ji baax ji joxoon di sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad ah sëñ Mudu Mbàkke noo gisee liggéey bi yow. waaw liggéey bi de moom sant ci yàlla rek ak gërëm bu baax sëñ Tuubaa waaye nag di gën a nawaat sëñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad Mbàkke xam naa fa mu jaaroon ci sëñ Saliou Mbàkke ku ñëw fii tey ci tool yi da nga xam ne loola moom tari na ko te des na ci ay loxoom ndax ab sëriñ li ñu njëkk xam ci moom rek mooy liggéey ak jaamu yàlla te ku ñëw fii da nga xam ne sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad liggéeykat la jaamukatu yàlla la boo ñëwee ci tool yi da ko gis boo demee ci dëkk ba da nga gis jàkka ji sëñ am sa mi nga xam ne it mooy rakkam di jëwriñ tamit wax dëgg yàlla li sëñ bi yaakaaroon ci moom lépp bi ñëwee fekk nañ ko fi ndax woonam fi taalib yi yëpp ñu dajee gis nga tool yi nu àndee fas yéene liggéey moom tool rek ba keroog tool yi jeex loolu moo doon suñuy tànk waaw jërëjëf dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu ma ah, yooyu sëñ Modou Mbacke yëkkati ci diggante sëñ Amsa ak sëriñ ak sëñ Sidi mi nga xam si ni mooy sëriñub Amsa ñu ngi ñaan yàlla sun borom nag lii yàlla na yàgg lool ci barke borom Touba tey jii de kenn ku nekk ma képp ku Touba rek fek na ko fi waaye ku dib tallu fekk na ko fi ah kon daal ñu ngi ñaan ci yàlla ayantu jëmmi Touba sa borom yàggal fi sëriñ Sidi mu sëñ Blaat ci yàggal fi rakkam jii di sëñ Amsa moom sëñ Blaat ci barke sëriñ Touba ak njabootu sëñ Touba gi yëpp jërë